mbokk yi damay laaj yéen ñi nga xam ne yéen a ma gën a yéen la seen xam-xam gën a màcc ci politique euh, assemblée nationale bii nga xam ne ñooy exercice seen métier ci jamono yi ñu toll nii est-ce que respecté nañ euh, parité boobu ñuy wax benn góor benn jigéen est-ce que cent soixante cent quarante nangam député xaw ma cent soixante nangam député yëpp na góor ña toll noonu la jigéen ya toll loolu yaakaaruma ko kon yéen jigéenu Sénégal. état Sénégal musu leen a respecté grâce à président de la république grâce à Yewwi Askan Wi peut-être mën naa am à partir de ce moment là parité dana existé wu ci Sénégal grâce à Yewwi Askan Wi grâce à la jeunesse la jeunesse bi nga xam ne ñoo jóg tey xam na ni seenum réew di doxe gisuñ ci seen bopp yéen jigéen ñi tey bu ngeen demee ba député yii di bëgg a ñëw nu góor ñi toll noonu la jigéen ñi di toll war ngeen sant yàlla sant sant euh, Ousmane Sonko parce que réforme yii yëpp bu Pastef amul woon du mos a am ci àdduna duñ leen mos a teg dara ay balla puy de rek lañ leen di mos a teg mbokk yi ñoom waa ba ba ñàkk jàmm waa kër ñàkk jàmm comme ni ko Babacar di waxe maanaam ñoom seen bopp bu fekkoon Sénégal ci yoon la ñuy doxal kon ñoom sax seen liste dañ koy dàq parce que respecté wuñ ko parce que dañoo ëppal la ñu waroon déposé ëppal na ëpp na. waaye comme ñoom ñooy séddale séddale bukki lañ koy def bii bukki bii njuur bii ki ànd ak bukki loolu nag est-ce que population bii nii nii nii jamono yi ñu toll nii. est-ce que képp koo xam ne sa xel mi ngi mi ngi màcc mi ngi màcc ci dox di dox li anglais wax any anyone is using your mind ya est-ce que yaakaar nga ne àdduna mën naa continuer na mu doon doxee 1960 ba léegi muy doxee noonu ba léegi loolu ku sam xel di màcc nàcc war ngaa xam ne mënut nekk ndax fii ma toog nii sore na ak Sénégal mais partout dans le monde entier ñi ngi may raisonner ñi ngi may seetaan ndax. bu njëkk day manu nga baña wax ñepp di la rejoindre mais japp na ne fi may waxee ni limay sétan sétanu télévision Sénégal kon yalla mo nam ak chopik ak chopiku ci am réewam yalla chopiku gi moko andi dama ne bu njëkk bala nga joko Sénégal lum gat gat da nga ñak 1000 wala 1500 bop ñi dem nak ba nga xamne ni par minute bu nek far nak lim lay dik dana upp dana upp témer loolu yëpp nouvelle technologie ñew nga xamne man nga joko jokkoo ku la neex wax ba sa batterie wu fay té dula dula coûter sax 100 francs la waral loolu mo waral kep ko xamni yaangi jité won am rew war ngaa xam ne na nga doon jiite réew ma dix ans yi passé war ngaa xam ne wuute naag ni nga xam ni noon nga ko a noonu nga ko war jiite léegi loolu moom lu waay dof dof dof dof war nga koo xam kon mbokk yi li ma bëgg ñu bàyyi ko xel daal mooy Sénégal yàllaa fi nar indi changement du yomb nag ndax réew la moo xam ni lëndëm dafay yàgg ba ku fi génne ab tor sax boo sàgganee ne xamal leen ne leen dañoo war a leeral fii di nga am problème Sénégal lëndëm dafa yàgg ba ku fa indi ab làmp rek yoway doon noonu ñëpp parce que tàmm ñoo gis lu leer tàmm ñoo gis lu leer waaye nag yàlla bu naree mbiram saase dégluwu ci ma sàmba dégluwu ci ma demba moom dana ko saase ca heure bu mu bëgg mu saase ci te kenn mënu ci dara nag waaye nag ci kaw nag sabab sabab lu askan wa wax naa leen ne leen kulli say in sababun mbir moo gis day am sabab sababu am réew saase askan wa ci boo seen bopp ñooy bëgg njëkk a yeewu ba pare xam ne réew mi daa war a saase ñuy xëy di ci gont ca lay tax mu saase bu boobaa rek sun boroom jàppale leen ci wax naa leen ko buri benn du ñaare inna allaha laa yuxayroo maa bi xawmin attaa yuxayroo maa bi anfusihim laay boobu xam naa ne buur na seeni nopp dégg ngeen ko ba tàyyi waaye nag looloo taxoon yàlla wàcce aaya boobu sababu nusulu aaya boobu mooy loolu saarul fasaada fil barri wal bahri bi maa kasabat ay dinaas boobu aaya tamit lu mel ni Sénégal moo ko taxoon jóg sun borom tabaaraka wa taala ci boobu nee na yàqu-yàqu yi ngeen di gës ci suuf si yëpp ak ci ci géej gi neena loxo yi nit ñi génnuñ ci effectivement loolu ku luwaay waay dof dof it war ngaa war ngaa nangu ne boobu effectivement loolu mooy dëgg mbokk yi Sénégal men réew ci àdduna bi moo xam ne autorité autorité ya fa nekk ci diil ci la ñuy xëy ci la ñuy gont maanaam lu jariñ askanoo itteelu leen li leen itteel mooy di dund ci politique ko amut benn métier xëy rek ñu di ko tuddi tudd ay milliards loolu moom Sénégal dong la mën a am amul man mënut a am ci beneen réew parce que men réew mu nekk banque moo mën a déterminer maanaam kii maanaam moom lan lay liggéey ba tax ba tax tey mu mën fay déposé un million suba mu mën fay déposer un million moom lan lay liggéey ban entreprise la am mais malheureusement resement n'est na le cas au Sénégal Sénégal tout le moyen sont bons pour avoir l'argent kër politiciens yëpp boo leen taaloon ay milliards moo fay lakk seen biir kër yi sax ay banque la seen biir biir kër yi ay bunker la ay bunker yoo xam ne nii boo tey tey boo raabaloon kër ga ba li ma leer mooy boo gasu boo gasut suuf sax doo gis xaalis bi ay bunker lañ def la tabax seen biir kër yi denc fa xaalis bi parce que xaalis boo xam ne kenn mënu koo layal moo am Sénégal xaalis bo xamni ne kenn mënu ko justifier fan la jógee xaalis kay dang ko wara a justifier wa mais man buma ma ba ngon jot war war war war nañu mën a ne man kat wax deug yalla war na ma mën am ma ma ko rek 25000 cinq mille wa junni waa léegi suma amé 4 jours wala 5 jours dem déposer banque bé 100000 mille danañ xam ne peut-être sax maanaam boo daan def seen nga déposé cinquante mille danañ xam ne lii jaadu na parce que lu tax yaa ngi xëy yaa ngi gont xam nañ fi ngay liggéey yow kenn du sonn ci yow yow bi ñuy sonn ci yow mooy bi ñu la gisee ci dëkk bi te xamuñ ci looy xëy xamuñ ci looy gont bu boobaa mën nañoo laa booleeg nit sax mu di top mu di top topp top la ba xam yow fooy liggéey ak fooy fooy fooy xëy ak fooy gont parce que gis nga ponkal rek mu xëy ñëw mu dëkk. te xamoo lu mu liggéey xamoo lu muy gonde lu muy gënde te gis ko muy daw oto peut-être mën naa mën naa am sax bu sax bu sax bu dee nit ku nitee day xalaat ne ki ab sàcc la bandi la dañ ko war a top ba xam moom fan lay xëy fan lay gont ak ñaata la mën a am par jour amaana sax ñu yebal nit mu ñëw ci la ngay liggéey maanaam di la di la di te moom defarluwul dara daa ñëw di indi fon boo xam ne wóor na ni fon bi duutul baax waaye lim lim jublu ci yow rek mooy sàkk sàkk koo xam ñëw toog sax ko xam yow mii ndax li ngay liggéey yaa ngi ci am dara wala déet dans un état normal noonu lay doxe waaye senegal ni muy doxe doxee sant ba léegi ku gaare ay parking yi oto ay 4 x ay 8 te amul benn entreprise ci kaw suuf benn entreprise amu ko dama ne tubaab bi nee naa leen kor mari kor mari ku ko génne ci système bi dootul dox. Sénégal nag dañoo bëgg leen nax di leen wan ay kiraama yoo xam ne nii kenn amu fa kiraama kiraama amu fa parce que kiraama da ngay mën a liggéey loo xam ne nii say doom ak say sët danañ ci liggéey waa askan wi yëpp nga amal sa askan njariñ kooku moo am kiraama ma ne tubaab bi lay liggéey ba am 65 ans retraité ba pare formé waat beneen société boo xam ne nii moom xam na ne société bii ba muy am ay milliards du ko fekk waa Sénégal kan moo fa formé entreprise. Senegal kan mo fa amal aw askanam Senegal senegal ñoy ñi exploiter seen askan ñofa nek waye ñu amal seen askan jariñ nekk ko ñëpp nag laa wax ñepp ñepp la ci bolé ñepp ñepp am gisuma fa ko xam ni tay ji ni manam téna téna réew torox amu fa ña nak ñepp dañ ci toroxal réew ma Senegal li may wax rek réew la mo xam ni da yag ci lëndëm ba boo genné ak ab ampoule ne da nga koy taal yee yow am nga problème ñepp dañ la attaquer ndax bu bëgguñu ab lampe tak fi parce que am lampe bu bi lu lëndëmoon lépp lepp dañ ci lek ci ronal ye ya dañ ko gis loolu moy Sénégal bokki tay duñ guddal dama né Ousmane Sonko gàcce ngalaama Ousmane Sonko Ousmane Sonko gis na ko démb muy changer mbeddi yi sori di tuddi ño xamné ay africain lañ. kooku sa demande sociale ñëpp ko waroon a laaj waaye waaw mais tubaab bi nga xam ne daroon doon sacrifier suñ suñ maam yi di leen dóor ay bal ci bopp yu rii tasaaroo ñu di leen tuddee Richelferi pont ba ñooñu lan lañ ñu defal toroxal suñu maam non Sénégal yi yeewuñ ko waaw mais lu tax lan moo tax senegal Sénégal sant ba léegi Ousmane Sonko ñëw rek yeewu te ña fa woon ñëpp kenn yeewu ci ñëpp nangu njaam nga njaam gënu tubaab bi doon def di rey suñuy maam Euh, euh, ku ne ku jàng na histoire de euh, Kaane Thiaroye ku ne xam na ne xew foofu waaye Ousmane Sonko moom bi mu ñëwee xam ne ñi doon toroxal sunu maam ñoñu ñooñu ñooñu li fekk ñu ngi leen di tudde suñu mbedd seen histoire du fi waru xanaa ku xanaa ku leen gis te fekk yow bokkoon nga ci ñañ massacré woon sa maam xanaa xanaa mbedd boobu boo fa jaaree war nga see rongoñ war naa root Ousmane Sonko defal nga Sénégalais yi liñ bëggoon defal nga africain yi liñ bëggoon tay ji ni sénégalais ah, média média corrompu bi fa nek do dégg sax ñu waxtané ko waye tay ji ni bo jappé afrique média ay télévision camerounais ay man man mom man mom bu ñëpp meloon man télévision sénégal <laughs> kon mom manam jërëtu sax ñuy ñuy tal non non man deglu leen deglu leen lu barke rasulullahi té loolu dong billahi wallahi tallahi bu ñëpp meloon man maanaam tey jii nii Sénégal télévision Sénégal yëpp bu ma déggoon ne nañ tey tey tey tey tey dara lu changé ci sama ci ci li may amee information. dara parce que amewuma ko ci ñoom parce que dégluwuma leen ndax dañuy réeral nit ñi man moom bu ñëpp meloon ne man man damay man bu ñu doon woote pétition nañ Sénégal média Sénégal yi man maa jëkk si ñi ne leen nañ tëj parce que amaluñ amaluñ population bi njariñ man maa koy jëkk a wax man man maa jëkk a man signé ñoom ñëpp nañ leen tëj amaluñ askanu njariñ mi yaa corrompu yooyu fu nekk mbokk yi sama xol dafa jeex rek waaye tey sama xol neexut sax dama ne dama ne woon rek lu mu gàtt gàtt rek danaa indi sama xalaat si li xew Sénégal